dañu seetlu ni aussi que ci suñu station régionale yi am na doxalin bi bu ñu teg te loolu yàgg na loolu daf leen tënk te nu leen tënkee day gàllankoor également seen ay performance ñu décider ni ñun ak ñoom dinañ tok inshallah allah nan ban type de gouvernance nan lañ leen di yore wala sax nan la ñuy yore seen bop gëna am autonomie comme biñuy am ak bi leen di niveau central bi di yokal nan lañ ciy mëna euh fayee seeni agent nan lañ ciy mëna a carburant parce que imagine que même groupe électrogène bu station Mbacké wala euh, durbel su amul carburant Dakar nga wara a pour mu jox la carburant kooku amul sens ce groupe électrogène su pané amo droit le prestataire de service il faut que nga wo Dakar pour que nit ñi ñoo dépanner la donc alors que station yi ñu ci bari ñu ngi produire ay recettes publicitaires am nañu ay caisse d'avance lo xamni war nañ ci gëna taxaw pour mu gëna régulier mais aussi yok caisse d'avance pour nga agents, agent bouy il faut faire appel d'offres national Nous nous ñu décentralisation acte 3 territorialisation des politiques publiques kon da nga jox n'est-ce pas les opportunités pour que nous aussi nous également consommer l'argent public mais ce fait que les centralisés centraliser dafay euh, vraiment handicapé euh, performance ou... Euh, euh, rajo yi ak télé yi kooku aussi incha allahu rabbi dinañ ci taxaw bu baax a baax ñu gis ni aussi que fu ñu dem ñi nekk caché dañuy jooytu def naa fi ñaar fukki at bi ma nekkee fii avant may am jëkkër ba léegi am naa doom boo xam ni sax peut-être et cetera bon loolu ñun mun nañu wax ni suñu fóot la parce que on a laissé faire parce sa njëlbeen comme Sorano la won rek da ngay ñew nga way def sa prestation ñu fay la nga dem radio ak télé aussi non la don doxé da ngay am fenen foy liggéey ñu jox la deux heures pour nga animer ben émission parfois dimanche la parfois samedi nga nek enseignant wala nga nek infirmier am wala nga bëgg musique dégg nga ñu jox la ay tranche weer bi su déwé ñu neexal la tuuti jox la ndàmpaay pour que nga mën a fay sa transport mais dafa dem ba nga xam comme Sénégal amul woon ay école yuy former ay animateurs amul woon ay école yuy former vraiment des comédiens dignes de son nom finalement radio bi télé bi ñoom ñooy école foofu ngay jàngee métier bi bi ngay tout tànk wu bi ngay xale ba màgg ñu lay dénk parfois micro parfois ngay dem reportage fekke technicien nga nga xam nan lañuy manipuler Nagra wala nan ngay pousser bouton ou bien nan ngay ñenn ñi avis et communiquer lañ commencé après nek animateur etc. donc lool yëpp ñu ngi koy saytu set ñu ci mëna jappalé pour que changer leen ba ñu mëna nek permanent jappalé leen nak ci formation valoriser leen sen acquis lool dinañ ko def ñeneen ñi nga xam ni ci cachet lañu ñu war a mën a des ngir seen âge wala heure yi ñuy consacré rajo bi dafa néew ñooñu dañ leen ne dañu dem xayma seen contrat ñëw seet si chef de station bi comme ça ñu waxtaan ñu d'accord ci benn euh, montant annuel nga xam ni peut-être dinañ ko ko fay par mois wala par deux mois wala par trois mois hein loolu su at bi jeexee su station bi gis na ni ki amna ay performance mu ngi xëcc publicité wala mu ngi xëcc ay auditeur surtout auditeur parce que ñun duñu radio commerciale. est-ce que li muy def amal na askan bi njëriñ mu seet ndax day renouveler contrat mais lool day tax euh, producteurs extérieurs yi dinañu wàññeeku mais aussi ñi fay dess yalla dina len jagleel cachet yo xamni vraiment dina peut-être sax parfois ëpp salaire wala mu jege ko kon loolu mooy doxalin bu bees boo xam ni bëgg nañ ko expérimenter defe naa loolu la maintenant laaj nañ ñu ci diversité culturelle maanaam aada ak cosaan nan la ñuy def ba gën ko fësal euh, xarala yu bees yi ñu am may nañu léegi ñuy dem ak suñu oto yi fu gën a sori capital régional bi gis nit ñi enregistré leen nettoyé ko parce que enregistrer, pour enregistrer il euh, support a bari na yemb na ba nga def comme Radio Sénégal à l'époque nga xam euh, euh, région yep yep yep, des enregistrer artistes des comédiens bon ça reflétait vraiment la diversité culturelle au niveau national di nga dem ci basari yi di nga dem ci bédig yi di nga dem ci pël firdu yi di nga dem ci halpulaar yi di nga dem ci wa ferlo di nga dem euh, comme euh, séeréer yi ak euh, kooku doon woy ndaga à Kaolack et cetera di nga dem ngoyaan tout ça loo xam ni deewul ñun ñoo yaakaar ni dee na parce que déggatuñ ko rajo comme niñ ko doon déggee mais ku tàmm di voyager di dem ci dëkk yu ndaw yi cosaan boobu mu nga fa ba léegi te ñoom Nous bayyi bàyyi ci cosaan bobu parce que gisunu lu leen ko remplacer kon nak ñun euh, li ñuy ñaan mission bi mu déboucher ci ñu mën gëna répondre ci suñu slogan parce que service public lañu le public notre raison d'être parce que il faut que Radio bi soppeku and ak jamono continuer di def sa mission de service public di informer mais aussi de divertir un divertissement pour xam ni aussi ak sunu ay